ngi leen di sant bu baax di leen gërëm euh, ci turu préfet département Tivaouane Mamadou Gueye bi nga xam ni euh, moom moo waroon ànd ak yéen visite guidée bii tey mais mu fekk mu am gàllankoor mu sant ñu ñu ànd ko ak yéen comme ni ngeen ko gisee préfecture bi dañuy sant monsieur le ministre de l'intérieur euh, bi nga xam ni ci kilifteef président de la république def na travaux rénovation préfecture Tivaouane comme ni ngeen ko gisee jàppoon nañ sax jour pour inaugurer ko mais pour des raisons aussi de calendrier ñu reporté ko mais ñu jàppoon ni balaa ñu koy def baax na ñu xamale tuuti waa Tivaouane ak préfecture bi parce que gis nañ mu toog lu yàgg am na ñoo xam sax xamuñu woon ni en réalité fii service la donc bu ñu demee ngeen gis service yi fi nekk lu mel euh, bureau préfet bi nga xamni mom moy kilifa gi amna na aussi euh, assistante particulière bu nek ak mom nga gis ni amna pool secrétariat euh, amna fu nga xamni aussi dañ fay def affaire générale lu mel association ak débit de boisson Euh, nga dem si beneen bureau bu nga xam ne am na archive ak documentation maanaam këyit yi nga xam ne moom la ñu liggéey fii yu ci yu ci am solo yu ñuy mën a denc foofu am na aussi bureau adjoint au préfet am bureau chiffreur dañuy wax naan chiffreur sax euh, daanaka bëreetul mais ñun dañoo bëggoon rek li nga xam ni mooy yenn courrier yu am caractère confidentiel ñu mën di ko di ko def foofu ak am personnel bu nga xam ne def nañ ko foofu mu mën ko euh, gérer loolu daal ci gàttal moom lañ bëggoon wax xanaa yokk Euh, ci lu jëm ci laaj bi nga laaj ci patrimoine classé bi di wax ne préfecture bi ngeen gisee batiment bi dafa daté de l'époque coloniale donc am na lu nga xam ni euh, ñun yoon mayuñu ko maanaam mënuñu ñëw rek raser ko wala defaat yooyu dañuy obligé à chaque fois di def lu ñu tuddee rénovation maanaam dañ koy beesalaat mais bu ngeen gisee architecture bi moom du changé benn yoon donc nu mu waroon nu mu war mel rek noonu lay mel léegi nag en plus de bat du bâtiment principal gis am na bâtiment annexe fa la salle de conférence bi nekk ak yenn bureau yu ma doon wax léegi mu nekk lu am solo ñu bëggoon ko partager ak yéen di leen sant bu baax di leen gërëm.